laan bikum tukkeem bu njëkk ca dëkk bu sell ba la ko xamal Tuuba Mbàkke moom président bu Sénégal ba tax yéene kaay tey fa ñoo xëy ñoom ñëpp di ñu nettali nganuk siru Jomaay Fay ca wetu xalifa général des Mourides bokk na ca Dakar Presse yéene kaay fa wax na ñaan ak tatagal sargal moom la ko xalifa bi defal ca Tuuba Sud Quotidien ne Jomaay Fay kay def na loo xamante ne Ablaay Wàdd musu koo def Macky Sall mi fi mujj a nekk njiit bu Sénégal musu koo koo fal tukkeem bu bu njëkk biti Dakar mu jaglal ko këru kilifa diina yi enquête yéen a kaay ne neexut ba neexut waaye jomaay fa bett ñu bari sa génn bu njëkk nga jaglal ko Touba ak Tiwaawoon wuuteeg président yi fi nekkoon ñoom kuñ fi ma safal président sa génn bu njëkk ca tubaab ya ngay dem kon la woon wan ni na bés bi yéen a kaay ne man li ma ci gën a neex mooy tukki bi amul mbumbaay amu teeru mbooloo mu bëri sol ay t-shirt jëli ay militant yàq xaalis bu bari déedéet yëf yi fa simple sedd guy amul mbumbaay amul dara info yéen a kaay ne Basiru Jomaay kay ab taalibe bu dem Touba la ndax la ca gën a rafet bi mu demee ba jub kër xalifa ba tànki neen la def moom président Diomaye Faye solu dàll de lépp ngir respect jox cër dëkk bu sell ba Touba ak warmal ku tedd ki Serigne Touba loolu benn président musu def direct news ne Diomaye kay fa jox Touba gëdd bi mu yelloo révélation yéen a kaay ne dem gii mu dem Touba ak Tiwaawoon tax na fi mu toll nii waxkat yu bari danañ tëj seen gémmiñ yi ndax fañ doon dëkkal Diomaye Faye foo xam ne dëkkut fa informateur yéen a kaay na ko jaaral ci digg bi Bassirou Diomaye ko doon tuumaal mais moom la fa ñoo contre kilifa diine yi fañ doon yàq waaye li ñu doon wax du dëgg moo tax fi mu toll nii débat boobu moom jeex na kenn dootu fi waxati naan ay ñoom sonkoog jomaa yi fonkuñ këru kilifa diina yéeg faalawuñ leen loolu moom jeex na intaha Dakar waas yéen a kaay ne moom koy fañ ko yàgg a ne fañoo contre l'islam ak tarixa mu dem ci kilifa diina yi nuyu leen jox leen seen cër fóon seeni loxo xanaa ay yàq der fay jeex vox populi ne yemut fa de fa leen a xalifa général des mourides li tax bi moom ñëwutoon Touba moom Bassirou Diomaye Faye ah, yow seetal fa ko wax lay ndigle ndax bëgguñu woon a ñëw ci jamono joo xam ne fa ngaa xatoon sàkku ci politiciens yi ñu may la ngir nga mën a wéetal sa borom digle yooyu nag ak war ma dëkk bu sell bi moo tax ñëwuñ fi faa bëgg na nga xam ne ñun en tant bu Sénégal gouvernement bi duñ def dara bépp dogal bu ñuy jël daal pour réewum Sénégal di ko yëg te ci waxtaan ak sàkku ci yéen ñaan la dépêche yéen na réeroo gi amoon ak wax yi di doon wax yépp fi mu toll ni leer na nañ xalifa général des mourides nag fa yow président Diomaye lépp loo xamante ne mooy njëriñu askan wi faa bëgg nga taxaw ca ak lépp luy saafara seeni jafe-jafe ak lépp luy suqali réewum Sénégal président na ko sang bi Mbàkke faa bëgg nga xam ne faa ñëw fii tey si Touba en doom en tant que taalibe te ñun état bu fa ñoo fas yéene dugal suñ loxo ci xeex lépp lu jëm ci wàllu inondation mbënd mi sonal Touba naka noonu tamit faxe ba Touba am ndox mu sell bu askan wi jëfandikoo la ci yokkal na la fa ñuy def a kàttan ngir mottali ko xalifa bi mu ne ko kon gërëm naa tàllalal ma ñaala la yàlla ndax yéen a kaay ne ba mu fa bàyyeekoo nag fa def directement Tiwaawoon ba mu yeggee la mu njëkk a def mooy fa dugg ca zaawiya Sidi Hajj Malick Sy ba ziyaara ñaan ba mu pare nag ca la ko xalifa général des Tidianes daal dalal muy Serigne Babacar Sy Mansour moom it fa ko dénk ñaanal ko yàlla ba pare jox ko ndénkaane xadara ba le regard a kaay ne Tiwaawoon googu nag ba mu fa yeggee gars yi fa ñoo jël matuwaay yu am solo ci kër xalifa ba bi muy dem nag moom président Diomaye Faye fa àndoon ak jëwriñ ju ñu dénk mi Jean Baptiste Tine ak jëwriñ ju ñu dénk wàllu dem beeg dikk bi Malick Ndiaye ak directeur de cabinet Mary Teuw Niane fa sàkku réew mi enquête yéen a kaay na ko yow daal fi mu toll ni président Diomaye Faye kenn xamatul lu la wax sa génn bu njëkk nga dem Touba dem Tivaouane loolu mooy wane cër bu mag bi nga jox kël kilifa diine yi leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na njiitaram Macky Sall fanam yi mujj ci nguur gi fa jël passeport diplomatique yi di ko tasaare mel ni kuy séddale mburu rek ay nit ñu baree baree la jox passeport diplomatique bés bi yéen a na su ma ko doon xayma daal ëpp na junney doomu aadama nekkoon ministre rek nekkatuñ ko wàllu sesaam beeg joxe rek li ñuy wax pagaay moo ci xamoon a kaay ci nguur gu bees gi moo tax passeport yu bëri fi mu toll nii gars yi fañ ko annulé ñii ñu nangu leen yéen a kaay bi nag li ni mel nag yàgg na fi bu ngeen fàttali ko Ablaye Wade ak Niass coowal jaay passeport diplomatique yu ñu joxoon ay chinois ak lu nekk am na fi wala fajir yéen a kaay na waaye njiitaram Macky Sall li ñuy wax conflit d'intérêt moo ko dal ah yow fa ngay xool envoyé spécial bu France la moom njiitaram Macky Sall ba pare jiite parti politique ci biir Sénégal loolu xen wut maanaa di le réveil na njiitaram Macky Sall nag fa ñoo wax fa jënd bu toll ci 40 milliards ba pare conteneur boo xam ne fa fees dell ak jataay ay table yu du xaaj ju jeex lañ jëlee ci réew mi maanaam fa ñoo xam xalaal ju ko gën a bëri ba jéggi dayo kenn xamu nu ci anam goo xam ne jaarut yoon wal fa ji yéen kaay moom fa ñoo xamal ne nguur gu bees gi liggéeykat yi nekk ci maire yi ak ASP yi mayu sax fuñ toogee ngir lijjanti seen i jafe-jafe déedéet ñoom commencé nañoo geraw ngir ñu saafar seen jafe-jafe l'observateur mel ni kuraan saafara jafe-jafe sénégalais yi nag ci nguur gu bees gii man nag fa may xaw a jaaxal ndax ñoom seen gouvernement bi ni ñu ko defee fa ñoo jël département yu bëri dajale ko est dana tax ñoom ñu mën a am efficacité mën a lijjanti jafe-jafe yi leer laneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy ne Ligue des champions Europe retour bi tey lay tàmbali Paris fa war a dem Barcelone stade yéen a kaay ne njàqare nag lañ xànd ak ah fa leen a fekk seen dëkk mbuq leen 3-2 léegi bu ñu demee foogale ne mën naa am tey naka noona tamit Dortmund fa bëgg a ci Atlético mi ko mbuqi woon ñaari bal ci benn ca ale ba jogante boobu lim dana neex record yéen na Paris moom su mbuqee Barça exploit lay nekk ndax mën nañ ko mu déet loolay laaj bi yéen bi ne Nicolas Jackson doomu Sénégal bay football Chelsea démb dugal na fukkeelu biyam waaye faay bañ na ngeen fàttee équipe bu mag a mag moom suba lay football fa nar a dem City <laughs> ay a métti waaye Paris